jaajëf salaam jaamu kumbe di niggas baa ngi nuyoo lee maa ko mëj woon waa dégg ko fay monsieur boy ji ji jiri der aka boy grave aka monsieur aka takke de dans votre émission Galsen sama gaan sur Equivox TV tey ñu dalal bees 93 fa seen yaatal ak moom ci projet mu nekk benn boy underground bu la neexee nga ne ko bees dundu gis bu la neexee nga ni ko bees 93 mais loolu yëpp ci kanam dina leer mu génnee benn sound bu nice euh, deep mon frère lu waral Dip mon frère dinañ ci ñëw ci kanam tuuti gaayanu Dip la woon démb tey nekkatul gaayanam leer na ma wala leeruma moom dina si ñëw léegi léegi mais avant tout dañ koy jox mu nuyoo après ñu dugg ci biir waxtaan bi bees na ko. Djily. yow ko frère. ñu ngi lay bëgg bu baax a baax. merci di leeroo bëggee yow tamit. big mhm. up sama ci Galsen sama game ci Redbox TV euh, tey yow lan dalal fas yéene yaatal ak yow. ñu bari xamuñu la. ñu bëri daan nañ la gis gisatuñ la. nga làqatu woon ñii ne da bàyyi rab ñii ne bàyyi woo rab. Mm-hmm. parce que am na ci ginnaaw kun la daan gis wala boog am na kun la daan gisandool muy diib tey gis nga fu mu toll. Mm-hmm. yow ba tey yaa ngi si suuf di ko xendal problème bi lan la. non avant tout d'abord baa ma nuyu yi bi leen ñoom ñëpp ñuy mm-hmm. seetaan euh, Equivox TV ñuy seetaan Djily Der. say abonné yi gars yëpp waaw. ñuy bëgge bees ñi vraiment xam man moom wax ju bëri mënuma ko quoi en tout cas damay bëggee ñëpp Grand Yoff cité millionnaire fu waay nekk rek maa lay bëgg mm-hmm. ba voilà bienvenue ok sama première question mooy bees dañ la daan gis euh, yow ak Dip mm-hmm. ngeen daan ànd euh, di freestyle andoo di defandoo lépp li may wax du ay wax nii nii mais mu ngi ci YouTube bi boo duggee boo bindee Dip freestyle ki mu daan toogal mu ngi nii moom laa toogal tey mm-hmm. mais gis nañ Dip fu mu yegg yow yaa ngi si suuf ba tey di ko xendal ñu bëri jàppoon ni yéen ñaar yéen a bokk mm. tey dem nag gisatul la ci moom ci wetam concert sax duñ la ci gis luy problème bi lan la ba pare nga génnee benn son di ko défendre gars yi ne buzz nga bëgg ñii ne noonu lu xew lan la. <laughs> bon waxuma rek kenn kam moo bëgg lu buzz si jëm ci <laughs> loolu c'est pas rapport yëpp bëgg buzz lañu bëgg. Mm. mais quand Euh, somme bi defuñu ko euh, ngir uti ci bës. Mm-hmm. naa la si wax lu leer nañ incha allah. Mm-hmm. beneen bi mooy da ne la moo tax gisaguñ ma. gisatuñ la ak diib la ak diib. Mm-hmm. si y a un problème ou musul am peut-être dib dem na yàlla may na ko lu mu koy may wërsëgam la quoi tu vois. loolu mun ma ci dara dem na ba egg fu mu egg nii buñ ma gisulee presque bon man yàlla moo mayul chance boobu rek mais mosuñu am problème. juste am na ay détails ndaw yoo xamante ni boo loolu du ñàkk si ñaar dañuy ànd. Mm-hmm. tu vois mais pour moi y' a pas problème te moo xam na bu baax amul benn problème su diggante jusque bon yàlla may mu koy may dem na man maay sama côté di yoon. Mm-hmm. voilà di yoon di takkale aussi ba li am quoi mais moom tey bu ñu gisee ay booy yu mel ni BMJ Samba Peuzzi from jàmm gën BMJ from Yoff booy yooyu jege ko te ñaar démb yéen a nekkoon tey gisatul la ci wetam kon problème am na. danoo xamul fan la jógee mais problème am na. bon man ñooñu moom xaw ma leen sax bali ba di leen ba di leen nii laa leen gisee flash nii xaw ma ñooñu sax franchement parler ay bi je sama pose sax mun naa ne parce que kooku temps reptile bu nekk caaro yi daan ñoo ñëw si studio bi di fréquenté kooku moom mun naa wax ay waxam tuuti quoi mais ñeneen ñi xaw ma leen quoi je sais pas comment. ils fait ba ñu jege ko noonu. Mm-hmm. mais xam naa ni moom kenn mënu ko jege xam ko ba ba ba raw bees ko en fait en en vérité bon lu si des bi daal c'est des détails lu ma ci sori quoi. ok mm-hmm. euh, nga génnee benn single bu nice tuddee ko Deep mon frère. Mm-hmm. lu waral track boobu Deep mon frère. lu lu lu yàgg la quoi en fait lu dëggu lu yàgg la woon c'est enceinte lii depuis démb la woon quoi en fait lu ma la tegal nii. Mm-hmm. c'est parce que je le considère comme mon frère. dañu dund lu weesu ay frères. mun naa ko ne sax moo tax en plus si j'ai pris sa défense c'est parce que. damay li <laughs> may gis si game bi dafay pour man dafa xaw yomb du tout quoi. Mhm. parce que comme ni mu ci son bi rek ku bëgg Beaux Arts yow foo nga saaga peut-être jili wala foo nga saaga beneen nit boo xam ne mu ngi ci kaw. Mhm. donc si j'ai pris sa défense parce que je suis resté trop longtemps euh, di gis booy ku jóg mhm. génne son. saaga dib ku jóg génne son saaga dib à ñoom ñëpp contre benn nit. tu euh, mun naa. mënoon naa def comme booy quoi pour fël gaaw gaaw. Mhm. ñëw bind son man tamit dem studio xamal naa pour bëri. saaga ko ndey gars yi siiw ne béy sadig na tu vois ce que je veux dire mhm. mais su ma ko defee tey jii di mun na ma indi yeneen yeneen affaire yoo xam te ne bokkul bokkul ci jëm quoi. Mhm. tu vois ce que je veux dire maintenant bon j'ai préféré prendre sa défense. parce que là dama ko xam. dund ma lu yàgg. te booy ñu koy sàgg gis naa dañ koy tooñ. pour benn raison ñu koy booy dañ koy tooñ. parce que Dip Doundou gis bu ñu xoolee saaga yi ci moom la njëkkee surtout alba projet dafa tàgg Dip dafa tàkk rek gars yi commencé di ko saaga. depuis 2014 dafa tàgg mais nag waaye bul fàtte ni Dip mooy sànni gars yi pic gars yi day dajale ah, mbooloo boole leen benn affaire pic c'est normal quand même. pic pic la bokk quand même. pic ci la bokk saanam bu mujj bi président FIFA. non waxuma bii <laughs> président FIFA bi bi c'était la terre dafa dafa dafa kii mais waxuma dellu si ginnaaw nga xool. Mhm. ay pic ay ay pic lay lancé. loolu si entre rapport jaaloo ndey kenn ay pig la. mais tey jii nii c' est différent gars yi dañuy dem profond tudd yaayam tudd jabaram tu vois ce que je veux dire. tout ah, nag boo saagaa tamit xaaral lépp de benn. waaw mais na nekk hip hop ah, parce que même yow bi sax gars yi nee nañ nga xaar lépp loo gis dagan na. man pare naa yow da nga nekk di défendre koo xamante ni considéré wu la lijjanti wu la. lu waral ngay défendre koo xamante ni considéré wu la sa démb sa frère la woon d' accord naa mais tey nekkatul sa frère. ban pro ngeen gisee ban ban ngeen déggante si lu ma forcé weewu béy gën ngeen gisee gën ngeen déggante et puis mooy loolu. d'accord musu la invité si son musoo ko invité si son musoo gée si concert am musul gée sa concert. baaboo booy bien sûr loolu loolu loolu moom amul quoi musu hmm. gën gisante euh, invité ma ci ay concert bon. courant bi daal dafa xaw a dagg na je veux dire ah dagg na mais man xam naa ni c'est pas parce que y a un problème très sérieux que maanaam moom dé déggante wuñu tu vois mun naa jàpp ne juste Dip il est occupé parce que tu vois comme ni mu la expliqué il a le buzz il a plus le temps de faire beaucoup de choses mais ci man même bon lu ko dal nii su la daloon ji di ma jàppale parce que xam naa la yo tu vois man damay far pour te dire net mm. ñeneen ñi xaw ma leen su ma taxawoon saaga kon man man ak ñii ñooy bokk benn benn jàmm bi. waaw mais yow sa sound tamit boo xoolee di mon frère da nga téye ñoom man lyrical nga ko blendé. bon du ma ñoom ñëpp nga saaga. tudduma non en fait tuddoo tur mais xam nañ ni ñii ngay waxal. tudduma tur son laa def comme ñëpp en fait. non bés bul daw deuxième. <laughs> xam problème bi lan la da ngay jël sa responsabilité da ngay génnee son. le son daggal leen saaga ñoom ñëpp. son bi am na clip Dip mon frère la tudd. waaw tu vois ce que je veux dire. pic laa lancé. Mhm. tu vois. Mhm. bu ko jaaree sax ñu dem maa ngi xaar en naa son bi mhm. ñëpp ku si gis sa bopp yaa xam ah man sama sama nekku ci ku si gis sa bopp yaa xam en tout a dem ku bëgg a xam la laa ci rab na dem xool j'ai pris la défense de Dip parce que wax naa la ay raisons comme dañuy jóg di saaga ku nekk di saaga bon en fait dégg naa man dégg naa ay son yu bëri boo yoo xam te ne Dip la ñu saaga te ñuy bokk ci yeneen label te booy bokk ci yeneen kuréel comme ni ngay wax nii ñii ay booy ngaaka wala ñi ay booy wàll wala ñi ay booy whatever. c'est pas un problème man su ma neexee jël sa défense ji yow. ku la saaga ma saaga. waaw mais tamit man boo jëlee sama défense du garaaw parce que jàmm leen seq mais koo xamante ni seqatul ak yow. jàmm nga jël défense est-ce que dama la ne est-ce que est-ce que dama la ne mën a mën a mën a tig dañoo jamante ay paaka wala. dañoo xeex balaa ñuy tàkkaloo. yow yow ngaaka jamante wu leen paaka xeexoo leen. <laughs> mais ñu xaw ma leen. mais xamoon wàllu rëkkal peut-être xamoo ko bu baax a baax mais mos ngeen gisante ca et puis bokkoon. gis nañu wax nañu téléphone mos nañu gisante affaire yooyu noonu mais fa la yem studio la ñu xamante kooku hmm. xamu sax fu mu dëkk ma mun na la ne carrément bees xam na fu mu dëkk tu vois ce que je hmm. studio la ñu xamante et tout ça jeex na. Hmm. ñeneen ñi moom du wax seen wax mais kee dañ doon fanaan benn lal di yowandoo di expliquante suñu ay problèmes profonds. tu vois ce que dib dundu gis bi ngay dégg. fanaan benn lal benn lal puusal ma puus ñuy bindandoo suñu son di di defandoo loo xalaatul saa si man moom donc su ma ko faralee. tey kon lan mooy problème bi koo xam ne fanaanu góoy fanaanu ngeen benn lal lan mooy problème bi ba nga xamante ni tey jii mënatoo leen tegoo bët mënatoo leen gisoo ndax koo fanaandu benn lal peut-être defandoo ngeen ay son defandoo ngeen dara mais mu suñu gis ngeen def son suñu gis ngeen ànd jamono bii ñu toll ni jaww def nañu ay son ba tàyyi suñu ay son la ñu yóbbu yóbbu Reptyle Music ba tax Idy signé ñu ñu bu ñu ñëwee Reptyle gars dañu ne indi son seen son yi. mais ana son yi. son yi ñu si YouTube bi. yooyu du ay freestyle. son son yu complet soo xamante ne moom lañ doon yéegee sur scène fu ne ay concert ay ay Fosco ay son complet hmm. son yaa ngi ci YouTube bi boobu yéem a génne la son yi. yéen mais yooyu incha allah après dinañ dinañ ko dinañ ko génnee euh, dugal ko ci kanam tuuti. benn ginnaaw bi nga tourné sax cap bi parce que xaw ma lan ak lan booy jaay taar ngeen yéen rappeurs yu bees yi mais mais sànq maa lay wax affaire Dip Doundou Guiss nga ni non nan bàyyi Dip dugg ci sa carrière am na solo dinañ ko def mais yow tamit yow yaa bëgg a jël sa carrière tënk ko si booy bi na Dip defoon na fi benn son Youssou Ndour Youssou Ndour gars yi na day wàlliyaan day sàmba mbayaat yow tamit dafa mel ni di Dip defoon noonu ba gars na day sàmba mbayaat moom nga bëgg def. <laughs> bon kon li c'est pas c'est pas la première fois je suis mhm. pas le premier à le faire façon bu mu defee boobu déggoon naa gars yi di ko wax. Mhm. donc su ma defee lii aussi bi ñu waxee parce que c'est une routine quand même. mais mais mais fële dund gis nga xam ne yéen ñaar yéen a bokk saayit boobu noonu. man su ma sa koñ foofu retour yi foofu. man su ma neexee tudd bees dund gis te kenn ko dindi. foo ko teg dund gis déggoo ko moom nga ni soo neexee tudd bees dund gis. <laughs> waaw loolu la parce que xam nga peut-être histoire bi man su ma neexee. tudd bees dund gis histoire bi expliqué ñu. ndax dund gis lépp. lépp depuis le début ba fu mu yem fii actuellement. Mm-hmm. man maa ngi ci biir luy cotisation luy réunion lépp loo xam te ne luy avancé dund gis man bokk naa ci te mu xamal benn affaire on était deux rapports. Mm-hmm. dund gis dip dund gis ak bees dund gis la ñu waxoon. ñun ñaari ñoo fa nekkoon 93 la. dama lay expliqué dama ne ñun ñaari ñoo nekkoon dund gis. Mm-hmm. dañuy ne dip dund gis bees dund gis amoon na nag cartel stable bu rëy gars yi nañu fa. mais ñu fa nekkoon rapport yi maanaam moom ñoo fa nekkoon ay rapport peut-être boobu ne saw ji mais saw ji dafa teel a bàyyi kooku dafa teel a abonné rek game bi bàyyi. Mm-hmm. beneen boobu tudd saw ji kenn. si ñu la nekkoon quoi. tu mm-hmm. vois man ma ak dib la mais kooku dafa teel a bàyyi après des man ak dib kese. ñoo doon réyante nag di def loo xalaatul nag pour dund gi dem a demee ci kanam ak gars yu bëri nekk ci biir. mais sa waa Saïd yow dib yéen a bokk Saïd mais sa waa foofu. est-ce que jëm nañ si dox jàmb yow ak dig mu nekk benn ngeen def projet yi mu naa si ngeen génne ko jox ko waa grand ñu bëggee si wàll. bien sûr am na ñoo xam te dañ ma doon wax contact dig comme benn grand Mohamed un grand très cool ku xam dib aussi da ñëw kër du ma souvent loolu la ma daan te quoi dama gis diib dama ngeen waxtaan am na mu solo tu vois bul déglu nit ñi man ko mais attends man qu'est-ce que tu veux que dib il est occupé dafa jàpp mu ngi si jéem a bàyyi ma loolu laa ko doon wax par contre ñeneen ñi dañu jóge heure naan saaga ko defal clash comme son bi nii par exemple ñu préfère ma saaga ko def loolu parce que li nga dund ak moom tey bu doon maa nekk sa place dama koy ñaanal de. <laughs> mais lu tax ma koy saaga ñaar démb mu jékki-jékki saa yi fàtte la. léegi su naa see tey su bu ñaawee foo mu saaga quoi noonu la. non doo saaga mais nga delloo ci ko parce que loolu hip hop. je crois pas que loolu mooy loolu mooy régler le saay booy ànd ak nit ngeen dem ba gisatoo ko peut-être moo la raw si live bi dafay baax des fois nga woo ko ni ko bro mu ne la nga ni ko defal combat. est xam nga raw moom peut-être ci yàlla yàlla moo xam. non mais jamono bii nag bees bu nee diip moom sax de kenn la tudd nag nan waxante. non gëm nga sa bopp trop Baye Fall. waaw gëm sa bopp trop am nga talent. mais nag duñ tudd diip di la tudd. par su may waxee raw comprendre nga de. Mhm. mun na ma raw parce yàlla moo ko may loolu. mun naa am sax yaa ko ëpp xaalis. non mais bu dee ci côté neem quoi. ñun ay xaalis yooyu bëgg hip hop bi man yoo xam nga bu baax. Mm-hmm. man su ma man su ma neexoon baa hip hop depuis très longtemps. Mm-hmm. comme li nga expliqué nga ànd ak benn nit. jékki kooku raw la raw la raw raw kii xam nga mm-hmm. gars yi dañu yaakaar wala nekkoo di liggéey wala yaa ngi ci leneen moo tax kooku raw la. donc wax yooyu noonu su ma toppoon wax noonu man bàyyi naa yàgg na ji. parce que je def son su ma toppoon loolu yëpp bàyyi naa yàgg na. mais loolu tax ma jóg dama xam ne carrément yàlla mooy mooy mooy maye xam nga donc bu la mayee bu mayee da nga koy bàyyi ak wërsëgam def laay fam c'est tout. di ko bëggee bu baax a baax di leen jox rendez-vous beneen yoon ci seen émission Equivox ci seen émission seen Sama Game Equivox TV Djily deer la woon dalaloon fi ndaanaan bi BS 93 respect ci moom ñu koy bëggee bu baax a baax di bëggee technicien bi di bëggee sama caméraman Mbaye. Khadija maa ngi lay dégg bu baax a baax jëli der la woon éykay boy grand éykay messi éykay takk éykay mën a fu ne respect si ñëpp jaajëf mais mbay balaa ñuy tàggatoo da ngay teg son bi bu ko defee gars yi am am ci apprécié xam son bi mi ngi daw ci YouTube bu baax a baax mi ngi def buzz nag commentaire yi maa ngi gis gars yi ngi saaga gaa yi ngi apprécier gars yi ngi def lépp mais daa si foofu mënu ci ñàkk ci la bokk boo defee son lu ne nga ciy gis respect ci ñëpp jëf maa fi koy gis nii wala ku ma teg nii nekkul lu kan jës nii nekkul club bu jës nii coupe bi la ñu jël si yaa fii ni fukkeen coupe yaa ngi ne jël ay coupe jël coupe mel ni fukkeelu coupe toog nii gis man la ndey la buusee damay rek nga jox jox sa loxo yi lay buusee dama koy teg niggas niggas faut pas bouger du logo bi yaa ma jox la logo bi DDG la nigga est-ce que nga logo bi rab bi tegale tergale kepp ñu lay tegale tegale yaa ngi dégg ni dégg ni dañu rap ñu jàpp ni dëgg ni ma bokk bi yaa fii la xam nga du ñu ay déggati danga may caméra wee benn genre kóolu Toshiba yaa fii mooy rap niggas ay flash mel ni Toshiba niggas nekkul déggi ba munoo xalaat déggi ba maa ngi nekk benn góor yàlla du ma tol ko def du tey laay bàyyi maa du tey ci li may ma koy teg dundu gis laay teewal sama tool freestyle rap freestyle jàpp fis changé njàpp fis kaay ma jox la yeneen rap hip hop ngay dégg muy metti bopp muy mel ni garab ak xob may rap di teg hip hop ngay gis muy teg génni mel ni Einstein gis dañuy teg feges ni gës

La vie m'a épuisé, mes dents m'ont complet dans mes fils de pute, par ton père qui m'a éduqué. Je prends la Je pense pas au succès, j'aime trop mon mec, qui est le hip-hop dans mon quartier. Mais y a la vie qui me décapite parfois quand je pense. Je connais pas mon futur, ni ma culture, mais je me rappelle le passé qui cassait mes passages, il m'est gâché. Aïe, on fait tant de mal, tout ça rien que pour le fric. La vie n'est qu'un film où Soufflement vie, ne t'inquiète pas ou fort mes ennemis, s'il le faut, dans ce cas, j'irai le dernier fils de Sarmama qui rêve de finir comme